sant mboolem réew mi. sant mboolem réew mi. ñaanaat. ñaanaat. yàlla. yàlla. ci barke mag ñu baax ñii ñu tudd léegi. ci barke mag ñu baax ñii ñu tudd léegi. yàlla na jàmm dal ci Sénégal. yàlla na jàmm dal ci Sénégal. yàlla na yàlla delloo si déggoo. bu ànd. bu ànd ak. bépp ñeewant ak cofeel. bépp ñeewant ak cofeel. ci diggante. ci diggante. njabootu Sénégal. njabootu Sénégal. jiital ca. jiital ca. le président Macky Sall. le ak i ministre ak i ministre premier ministre. premier ministre. Amadou Ba. Amadou Ba. mboolem gouvernement bi. mboolem gouvernement bi. mu wàcc si. mu wàcc si. ba ci parti politique. ba parti politique yi. ñaan. ñaan. lëngoo. lëngoo. waxtaan. waxtaan. diisoo. diisoo. liggéey. liggéey pour jàmmi Sénégal. pour jàmmi Sénégal. jàmmi sénégalais yi. yi. ñoom ñëpp. ñoom ñëpp. ñu leen koy woo ñu ngi leen ciy woo. di leen ñaan. di leen ñaan. joxante loxo. joxante loxo. buy indi. buy indi. tawfiiku réew mi. tawfiiku réew mi. jëm ci wàllu développement. jëm wàllu développement. ku ne xam nañu. ku ne xam nañu. boo ko noppee. boo ko noppee. nga wax ko. nga wax ko. Sénégal Sénégal fan yi ñuy dund fan yi ñuy dund ci weer wii ci weer wii ak weer wi ko génn ak weer wi ko génn ñëpp jaaxle nañu ñëpp jaaxle nañu te jaaxle ga te jaaxle ga warul warul ndax ndax réew mii réew mii mag ñi mag ñi dugaloon nañ ko ci seeni lawraat dugal nañ ko ci seeni lawraat Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh Cheikh mu baax ma sunu maam moo ko waxoon moo ko waxoon ni réew mii ni réew mii mag ñi lawraataale nañ ko kon kon bëgg fi safaan bëgg fi fitnaal nit ñi la yàlla bu mu am ko ko fi bëgg yal na yàlla jël. yal na yàlla jël. siwa ndoxam. siwa ndoxam. suy ko ca. suy ko ca. ba safaan du am. ba safaan du am. jàmm rek kay am jàmm ñu dem ci jàmm. ci jàmm. ànd ak waa réew mi ànd ak waa réew mi. ndax adduna bi yëpp. ndax àdduna bi yëpp. ñu ngi seetaan Sénégal ñu ngi seetaan Sénégal. ñu yaakaar ni ñu ngi yaakaar ni. léegi mu toj. léegi mu toj. te warul toj. te warul toj. ndax. ndax lu koy toj. lu koy toj amu fi amu fi te newu fi te newu fi. yàlla na yàlla boole defal. ñu ngi sant day